dispositif on l'a respecté bi ñu déggee ne Ousmane Sonko mu ngi ñëw si dëkk bi ñu téye suñu caravane pour xaar mu romb parce que après tout ministre de la république ñu jaar suñu buntu permanence indaale ay jaas ay coupe coupe ak ay gros bras gisuma ci police gisuma ci gendarmerie li ma ci gis mooy ay ponkal yu bëree bëree bëri yooyu ay jaas donc tout préparé la woon parce que xam nañ ne ils sont minoritaires ici à Koungheul ils veulent nous brutaliser mais ñu ne ku ñu xam xam ne du ñu ragal ku ñu xam xam ne du ñu ragal donc lii nii tey lii nii tey mën ngeen ko mën ngeen ko filmé dañu tëkkatoo ci am sàcc seen musique matériel toj pono pono jakartaay bi dóor ñenn ñi tiire ñenn ñi lacrymogène c'est des voleurs c'est des vandales c'est des voyous ils ont volé trois jakarta ñu koy seen oto yi sàcc seen musique bu El Hadj Sall mu ngi nii il est témoin vous pouvez lui prendre mu yëkkati mu ko yëkkati dégg te loolu yëpp ay li ñu li si dal suñu xel mooy commissaire était là ñun nag on a appelé le le huissier pour mu def constat yi comme commissaire témoin la ñi fi nekk ñëpp témoin lañu dañu xaar réew mi mu def mu def yoonam su fekkente ni nag dans les vingt quatre heures dans les vingt quatre heures lii lu ñu gis ñoom la parce que ñu gis ñoom ñëpp ku ñu ku ñu xoxatal wala ku ñu bunduxatal bu dara defee lu dee on est prêt Alaji Fall moom mooy animateur bi nga xam ne moo tegoon oto bi yore yoroon matériel Alaji Fall ñu ngi lay déglu. waaw damaa ñëw man ma ne leen man ma dégg animation moom génn mais animé ñu dégg ay lii ma dugal bi ma dugal bi ma rendi ma rendi la rek ma génne xam ne man sama jëmm ji moo génne matériel bi sàcc sama table message sàcc sama ordinateur sàcc sama sama sama micro cent mille table message bi rek 10 000 laa ko jëndee. wala cent mille bi ah ordinateur bi wala sax lépp sa tur boobu ñu ñu rendi loolu ñu wax man nag du ma du ma tax ñu lay rendi ci affaire alal loolu moo tax ma bàyyi leen ñu dem waaye ay naafeq lañ ñoom baaxul tey baaxul ay sàcc lañ ay sàcc lañ waaw kon naa la Sama baax si matériel bi. ñu lan ¡Vamos!